su kay na maa ngi la ko doon wax sànq mhm. euh, jamono ji ñuy wax ak yéen nag moom son excellence monsieur le président de la république du Sénégal muy Bassirou Diomaye Diakhar euh, fay ma nga fële nag ca Nouakchott ci Mauritanie ngir teewee nag euh, ci conférence Union africaine sur l'éducation bi nga xam te ne ni moom lañ fa woote te homologam bi di Mohamed Cheikh El Ghazouani daal di koy fas yéene dalal foofu nee nañu nag conférence la tax ñu gën ko wootee bokk na ci nag ngir rek ñu daal di jéem a xool nu ñuy renforcer euh, l'éducation supérieure euh, bi nga xamante ne ni ñu fas yéene former ñi nga xam ne ay diplômé lañ ñu euh, pare pour seen bopp pour ñu rek ñu mën leen a mën a daal di euh, saytu bu baax a baax ci wàllum domaine yi nga xamante ne nii wax nañ ko jëm nag ci wàllum science technologie ak yi euh, ak euh, ñi nga xamante ne ñooy formé wu ci wàllum mathématique ngir rek ñu mën a investir bu baax a baax ci accès éducation bi ngir rek ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk di yëngu ci boobu le mbir loolu daal moo fas yéene nekk waxtaan wa tey ni ci yokk nag mooy que ni daanaka moom son excellence noppalu kuwul dara ndaxte eh, Qatar la jóge tey ji ci suba mu dem fa fële mooy Mauritanie gars yi nag am na ñu commencé di sànni di wax ne genre bi mu toogee ba léegi voyage sur voyage yi nga xamante ne dañu wax ne dafa coûte lool di eh, indi loo xamante ni daanaka Sénégal daf koy daal di dépenser di ko ñàkk ci xaalis jëm nag eh, ci voyage yooyu nga xam ne mi ngi koy faral di def te Omar Bun Khattab ñenn ñi sax di dem ba wax ne affaire yi am am gisaguñu njëriñ daal ci ci ci ci voyage yi ñi président bi di def di rek li mu toog ak léegi yow est-ce que gis-gis boobu nga ci am. di féliciter le président de la République. di ko ñaanal. yàlla gën ko may wér. ak mm. kàttan ak kérosène bi mën a def ci avion bi. Mm. mën di tukki di dem fu ne. Mm. waaw bu toogoon ñu ne moom moom ban ko falee ba léegi mu ngi toog demul fenn demul lijjanti lenn. kon dem gi muy dem dañ ko ciy féliciter tout d'abord waaw te heure bu mënee dem pour yitte Sénégal parce que yàgg na ci réew mi te daawuñu ko gis muy tukki kon bu dee tukki tukkiwul pour boppam mais mais di leen suivre s'il vous plaît voilà tukkiwul pour boppam mais day tukki pour réew mi bu doon jëmm ma ko yóbbu wala mu utu li muy am mais jug bu mu jug rek Sénégal la ko jugal te ba léegi demagul fenn ñëwaat ne lii man lañ ko may mais lépp lu muy indi ci réew mi la jëm kon bu jugee ñun la jugal ñii naan nag day tukki lu bari gàcce la ñu am parce que dañ doon wax naan président bi de amul charisme bu toogeeg Poutine bu toogeeg diw bu toogeeg diw ñu gis ne place bu mu toog dina ko fees dell loolu moom suñu borom may na ko te lu bett ñu bari la discours bu mu def ñu ne gongo lii bett nañu mënatuñ wax loolu léegi ñu ne ne na toog bu toogoon ñu wax leneen maanaam ku bëggul la rek noonu la maanaam ku bëggul bëggul li gars yi naan noonu du bëgg mukk loo defar defar defar moom dina am lu mu ci wis loo xam ne da koy yàq léegi la président lu tax tukki yi muy tukki am solo président bi dàq na tukki Sénégal bu mu jum lay wadd la lay Wàdd noono la tukki lan la jëriñ Sénégal Abdoulaye Wade bi muy jóge Sénégal lan ngay wax doom ji Karim ngay critiquer mais ci côté liggéey doo ko critiquer maanaam bilan Abdoulaye Wade da ko amoon mooy ni mu defoon mooy dafa diversifier suñuy relation ñun danoo sukkoon jébul rek ci kanamu France mu naan ñu fi ngay jaar fi ngay jaar fi ngay jaar Abdoulaye Wade ñëw dugg ci golfe bi dugg ci araab yi dugg Asie alal ju bari dugg ci réew mi alal jooju tey mu demoon jëli moom la investir ci réew mi tudd nañ ci yeneen ak yeneen mais yooyu yeneen sujet la kon tukki am na njariñ mm-hmm. tey jii réew yi amuñu ay xarit mais ay intérêt la am Sénégal fépp fu ma gis intérêt am da ko war a dem jëli mm-hmm. tey tukki bii mu demoon def ko Doha xawma Qatar ak yooyu mais tukki boobu nga xo neen la est-ce que xam ne Abdoulaye Wade bi muy doog ñëw li dal Sonko ak Diomaye moo ko daloon boo xoolee tubaab yi dañ ko doon chantage panafricain la bañkat la parce que tubaab yi ñoom boo dee bañ maanaam dañ lay jox ba pare di la tegal ay condition yaa ngi gis euh, premier ministre bi dalaloon Diomaye ba pare naan doon nañ waxtaan pour ay investissement waaye ci wàllu góor jigéen ak yooyu dalay tegal condition alors que bu dee arabe yi ñoom ay affaire bonk mondiale ak ya règle yenn regle yi ñoom nekkuñu ci ñoom dite la la jox li Sénégal soxla nekkul loxo tubaab yi mais ci loxo naar la ne kon Diomaye buntu bi mu fëgg mooy buntu bu baax bi maanaam fépp mu gis ni Sénégal am na fa intérêt war na beneen bi sopp bu dee Mauritanie gi Mauritanie la lañ seq gaz gaz bi ñun dañ ci yaakaar mu soxalu suñ réew cinquante cinquante la suñ diggante ak ñoom kon ñun neex ak Mauritanie rek mu ñu jig te àdduna bi nekkatul adduna boo xam da ngay tëju di liggéey yow kase boo xoolee même réew yi tëj woon ci àddina ay arabu saoudi ay Chine ay li ñu boo xoolee réew yëpp dañoo commencé di ibbeeku par que xam ni solution bi nekkatul ci ibbeeku mbir mi gagnant gagnant la nga indi li nga am kee indi li nga am kon tey jii jug yi muy jug bu doon boppam la koy jugal parce que yàgg na fi nekk impôt domaine te kenn musul dégg mi ngi tukki kon tey jii bu yàlla defee mu falu dem di tukki te lépp lu muy tukki da koy indi pour réew mi jariñoo ko lu am solo dama am sama benn xarit euh, sama jigéen Yacine dafa ma korog wax wax bu bu ma reelu daf na ma Sénégal j'ai l'impression ko man ñi fi nekkoon mosuñu liggéey xam nañ ni lu tax ñu jaaxal gars yi liggéey même boo gisagul résultat bi ñu ngi liggéey di jëmbat dara peut-être ëllëg mën na sax premier ministre bi critiqué bi ñu koy critiqué parce que mu ngi liggéey président mi ngi liggéey togguñu du noflaay peut-être li nekk xale la tàmmuñu yenn yi tànnuñu yenn noflaay yi moo tax ñuy liggéey mais boo xoolee j'ai l'impression que jomaay ba mu faloo ba léegi noppaluwul boo xoolee vacances gouvernementales chaque année day am xam nga yaakaar naa août septembre lay am gouvernement bi dañuy jël vacances ren amul vacances. parce que dañuy doog toog. non am na ñu daan doog a toog am na ñu doog a toog xalaat te pourtant ñoo ko moom. bu ñu liggéeyee ba benn moment at jeex guvernement bi am na nañu benn temps bi ñuy jël. toog dina am nag yenn ministre yoo xam ne duñ dem vacances mais yenn ministre yi dem mais fii danga fi dégg noflaay ak noppalu. même le premier ministre bi mu nekk ci campagne bi Ousmane Sonko mais boo xoolee yenn dossiers yi waxal na ko boppam maanaam da doon def télétravail mi ngi ci campagne électorale di def télétravail di liggéey lii boo gisee mu jaaxal ñenn ñi on n'a jamais travaillé ñi fi nekkoon daawuñu liggéey. léegi nag boo gisee ñuy liggéey dina la jaaxal. d'accord mais Sonko ak Diomaye moom nan ko def comme mbaam mag doom jaag kii borom mbaam mi boo yéegee ñu ne yéeg na boo wàccee ñu ne wàcc na l'essentiel moom it nan xam fi ñu jëm rek nan focus la taxoon ñu falu nañ ci ne focus rek te bañ a gës. Hmm. jeex na. Assane noo jàngate voyage yi président bi di def ba ñenn ñi dañuy wax ne boobu ba tey mi ngi dem te gisaguñu vraiment njëriñ ci voyage yi muy def. waaw am na solo. Ah, ak ñàkk a noppaliku gi. déet nopp sonn moom defu ko avion bi ak lala yem. Eh, avion bi avion bi nee nañu ab lala yem rawatina avion président Diomaye bi kon sonn. président mu dëgg yàlla sonn ñu nekk naan coonab jamaay bi sonn noppalu jamaay si noppalu la dëkk. ah yow demal ah, yow xoolal bi mu jógee Qatar dem ba ma nga ne dem eh, dem mu tane. boo ko siisee oto yi si sekku si rajax rajax ji ma président bi fa muy nekk moo ko ab la la comme néegam rek. loolu de dem. mais xel mi noppalu ku nag asal loolu dàq noppalu nga naan. lan moo dàq noppalu ngi si jàmm bu baax mi ngi noppalu amul benn coono moom président Bassirou Diomaye Faye xam na ni lam doon daj dajatu ko. ah coono yam daan daj di fajaru di dem impôt di kii ak di wut seen mburu ndam ay yow xam naa li ma leen wax bu baax ah, coono yam daan daj dijatu ko mi ngi si jàmm bu baax a baax ñun ñu rek dafa sonn nag nopp lu dara dara jotu ko mi ngi si jàmm bu baax a baax dama lay wax rek. yow dafa nekk si jàmm dafa sonn dafa nekk si jàmm. mi ngi si jàmm waaw. Ah. ba daan dem naan jaam foofu mburoog ndam yooyu nopp daa dugg biroom ñu daaj lu ne booba la sonn mais fi mu ne sonnatul mi ngi si jàmm. beneen bi mënuñu leen a siise ni ñu ngi liggéey. ndax la mënuñu ah mënuñu leen a siise ni defuñu fi dara de. Mhm. boo nee gouvernement bañ fa ba léegi defuñu dara ñu ne dimbali leen ñi ngi a doog <laughs> ah boo nee defuñu fi dara dañ naan dimbali leen ñi ngi doog a toog léegi boo nee def nañ fi dara ñu ne oh xool bi ñu fi ñëwee léegi liñ fi liggéey ñaar yee maanaam. def dara wala fi liggéey biñ fi ñëwee léegi nga nangu ni liggéey nañ ñu ne defuñu fi dara da ngay nangu ni diggante bi war nañ fi mën a def dara ko diggante bi ñu fi toog war nañ fi mën a def dara wala diggante bi ñu toog mënuguñ fee def dara. Mm-hmm. ñaar yooyu la ñuy comparé. <laughs> du dëgg kon gouvernement bi nañ gën a góorgóorlu liggéey pour askan wi te xam ne lii président Diomaye di def it il faut ñu euh, ñaata ñaata litre lay lakk. Ah, gasoil <laughs> gasoil bi li muy lakk bi mu dalee xam nga ñaata bërigo la lakkagul bi mu toogee léegi. moom président Diomaye ñaata bërigo mu gàtt gàtt war naa mat fanweeri bërigo essence. <laughs> wala gasoil kerosène benn la rek lim lakk war na koo mat da xam nga avion li koy yëkkati ñaata réew la demagoon te benn réew la fi indi xaalis muy siin benn réew la indeegul xaalis muy siin siin lañ ko may xaalis yi des yëpp kenn joxu ko xaalis. si ko may xaalis mais ñuy ay accords yu ñuy. non loolu la rek loolu liggéey la rek non non. waaw mais loolu kay mooy doxal réew mi. Abdoulaye daan dem ñu koy may xaalis mi indi Macky Sall mi daan dem ñu koy may xaalis mi indi. Macky Sall euh, wax xaalis bi. dañ dañ dañ ko may waa réew mi wala dañ ko ko may loolu la. lu mu si daan wax. lan la si daan moom déedéet <laughs> dama lay laaj. Diomaye <laughs> ba mu ñëwee lu mu wax xaalis bi Sénégal lañ ko may. waaw Macky lu mu daan wax ah xaw ma ko de. ah voilà xamoo nag bu pare ngay dugal foofu Macky bu ko fa dugal léegi. waaw président Diomaye yi dem si réew yi. Ah. di signé ay accord waaw pour ñun ñu liggéey. Mm-hmm. affaire yi gën a yaat mu ni société yi daw leen ñëw. Mm-hmm. ngeen liggéey pour Sénégal mën a jëm kanam. nañ ñu jàppale ñun ñëpp lañ ñu gën a tijji société yi ñun ñi société yi bu ñëwee mën a dugg suñ biir société yi ñu mën a liggéey bu ko defee Sénégal mën a gën a jëm kanam am am na solo. Mm-hmm. bravo Assa ah, jaajëf waay alaaji mhm. euh, jamono ji moom ma nga mooy Mauritanie euh, di teewale euh, conférence boobu ñu fay fas yéene amal ñenn ñi nag nee nañ voyage yi bàyyi na lool daanaka rek mm, am na sax ñu dem ba wax ne est que du jural perte bon ci xaalis bi muy économie bi muy bi muy bi muy def ci ci ci ci ci ci voyage yi kii ni mel mhm. ak coow li mu jur daal ci jamono ji ak coono bi waaw tout d'abord ñuy wax ni kon léegi defe naa ni waxatuñ ni euh, premier ministre mi ngi nëbb président ah. kon léegi président ngi fés nangu nañ loolu kon ah. kon léegi bàyyi nañ ni premier ministre moom rek la ñuy dégg comme que président ngi tukki ba ñuy wax ci tukkeem alhamdulilah du dëgg hmm? léegi kon foofu la yëf yi toll xam nga président wax laaj nga sànq Assane xaalis bi président yi daan jëlee ci dëkk yi ku ko daan moom ñoom seen bopp euh, loolu am nañ ci ay preuve Assane fii lañ fi dem Taïwan may na fi Sénégal milliards xaw ma sept milliards yoo xamante ni bii Macky Sall nee na Abdoulaye da ko may Abdoulaye fu mu jëlee huit milliards ah, ba koy may ba Abdoulaye Wade taxaw weddi ko ah, maanaam non yàgg nañoo gis yàgg nañoo gis président yi di yëkkati kii di naan may naa lii may naa laa mm. maanaam bu ñu leen maana may alal maanaam dañuy jàpp ni lii seen moomeel la ñoom ñoom ñoo neex waa ji waa ji mu ñoom la ko may loolu moom gis nañ ko waaw loolu yàgg na fi am du dëgg mais leneen li am solo leneen li am solo mooy xam nga tukki yi ñoo bokkul façon tukki yi mhm. maanaam bu dee dama doon tukki pour ne waaye taxal nu ma lijjantee weer wi dem ci dëkk sàngam mu may ma nàngam wala dem ci dëkk sàngam mu may ma nàngam wala dem wax samay problème ñu maanaam mel nii président africain yi ñaan xam nga boo seetee président Burkina bi demoon na ko fële yi <coughs> bi muy wax naan ñëwuñu ngir di tàllal kii quoi di ñaan ak affaire yooyu comprendre que à chaque fois ngay wëlbatiku di ñaan loolu dañ ko war de gis nga sunu président yi nga xamante ni bi ay ndaw lañ hmm. maanaam esprit boobu dañ cee nekkut maanaam ñoom bu demee dañ lay proposer boo suivre visitu président Diomaye Qatar ak et cetera boo déggee li nga xam ni moom lay woote maanaam réew mi lay jaay comprendre waxuma sax réew mi day jaay sax Afrique ci pour investisseurs yi ñëw investir ci Afrique. Mm-hmm. parce que da leen di wax ne leen marché la boo xamante ni bi te et puis kaaraange am na fa. loolu mooy li nga xam ne ci lay woo ñi nga xamante ni bi tey war nañu mën a ñëw investir ci dëkk bi ñu ñëw investir ci yooyu lay woote. comprendre ko bokkut ak ki nga xamante ni ki da koy jox pour lu mu lijjantee yëf yi maanaam ñii dañoo bëgg tabax xam nga ki nga xam ni dafa ñëw nga jaay ko benn kër mu ñëw rek tegaat bi yëkkati xamut la ca suuf. fondement bi ñii dañoo ñëw li njëkk a diagnostiqué mooy lii lan la lii ñu leen jox mooy lan bi ñu gisee poto yi yàqu ak yi kii amul poto. yi nga xamante ni bi doxut ñu ñëw ne leen kër gii nga xamante ni bi moom ngeen di gis nii de yaakaaroon ni ab étage la bu ñu mën a ñëw rek continuer kër gi de ndekete amul pot ay birig rek lañ croisé lii ci màbb la jëmoon ñu ne léegi nañu tàmbalewaat ci njalbeen ko mooy suivre yu foo yeeg et cetera yëpp comprendre ko wax li nga xamante ni bi moo fa nekk commencé wut ay feer commencé tabax defar ay poto pour tabaxaat kër gi il faut que ñu xam ne Sénégal dafa tàmbaliwaat pour tegu ci ay base yu dëgër këcc foofu la yëf yi toll comprendre donc loolu nag mooy wuutale ñi fi nekkoon gis nga tey ji boo falaatoon ñële dañuy ñëw lii lépp dañ koy mascarade rek ñëwaat kiiwaat noonu comprendre di lijjanti dëkk bi di gën a naqari ñu naan la croissant baa ngi yéeg ak kii baa ngi loola deux virgule kii ñi ngi deux chiffres ñi ngi fekk nit ñaa ngi bëgg a dee dara doxut ñii nag dañoo ñëw wax la ne la jàngoro ji lii la léegi nag nañ commencé nag sénégalais bu ne xam ni kat dañoo nekk ci ay jafe-jafe nuñ mën a def pour génn ci problème bi loolu mooy li nga xamante ni bii ci lañu ci lañu wat donc président tukki yi muy tukki yëpp. am na solo ngir ay problème mooy li Omar wax expliqué sànq maanaam. 17 millions sénégalais yi seeni jafe-jafe lañ jël wékk ko benn sénégalais ngir na ko yaa ngi ji lijjantil ñu problème bi. Ah, kooku lu mu tukki du doy. moom mi ngi ci jàmm. lu mu tukki lu mu tukki du doy. yaa ngi dégg lu mu tukki du doy non mun mënut nekk ci jàmm xam nga ñi nekk ci jàmm. Diomaye hmm. boo ko gisee président Diomaye boo ko gisee yaa ngi nii tey yaa ngi naan. mu ngi commencé bi jaay mi ngi kii ak problème mu nit ñi mooy problème am déedéet problème nit ñi ñooy problème ah, dafa am gis nañ ah, gis nañ waa waa ji fi jóge yaa ngi dégg amutoon benn problème. ah est da doon kookoo doon gundaan daal. Ah, da doon ñuul la boo gisee léegi ni mu wàccee léegi. ndeysaan léegi waaw léegi bi mu wàccee. dafa nekkatul ci kii bi léegi loolu la boobu la lex yi wàcc. non non lex yi yéeg na li am solo. li am solo. mooy. Euh, loolu moom du critique président ma ngay tukki mooy wane ni mu ngi liggéey. voilà ñi ko ñi ko jàppee ne dañuy critiquer président. Hmm. nañ xam ni wax dëgg fa yàlla dañu am président bu actif. nekk ci yitte yi. ba pare nekk xale. waaw di di di liggéey nekk ndaw nag. Mhm. yàlla yal na ko sunu borom. doolee kàttanal mu gën a mën a liggéey. allah xool ni may def xool ni may def nee na man parce que. <laughs> Euh, am na solo waxtaan bi mhm. euh, lii la ñu indi woon tey rek ci actualité du jour jox leen ak dig daje suba ak <laughs> jàmm incha allah